a safoo di ñu seetaan ci Equivox TV dalat leen jàmm rek ci seen xibaaru làmb ji nee naa leen nii la demee rek saa su nekk ma ci ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. soxna Ami Diouf fay naa la. yaa maa ngi sant yàlla bu baax waaw mbaxana bi nu lii de mbaxana taalibe la lii moom yaakaar naa ne ñi may seetaan xam nañ mi mbaxana. Mm. waaw moom defe naa ne. Uh-huh. wax dëgg yàlla moom ah mm. waaw. laafa bi daal la macha allah waaw lunettes yi moom du mën a ñàkk ma koy wax ak a waxaat rek waxaat wax waxaat du bëri wax Lamine Seck borom Lutte TV kenn du moom ci man moo ma jox yi lunettes yu seer maa ngi koy béggee waaw suma gayen suma xarit suma seex di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom mhm. voilà mbokk bu baaxee rek ñu dem seetaani revue des titres daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum jeudi 25 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb nag moom tey fa mu xëy ñëw ci xëtam mu njëkk daal maanaam loo ci mën a dégg diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro de maanaam depuis fukki weer ak benn yëglikaay bi jàpp na ne nag yoo xam ne toog nañ ko di ko somme maanaam daal bëriwunu maanaam xeexunu mu ne nag fi mu nekk numéro daa mel ni jeex na léegi ndax li ko waral ne nag le 4 avril ku ne xam ne ni ki nga xam ne moo di Eumeu ak Lac ñoo ca war a laale moo tax yëglikaay bi xëy tey samp laaj ndax ñaar ñi nag moom ah pare nañu ngir daal béggal public bi ba ñu bég mu mel ni ki loolu sunu làmb tey xëy samp ko di ko laaj moom yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb keneen koo xam ne tamit ca bés booba la war a bëree muy Moodu Anta mu war a bëree ak Diène Kaïré bi ñëw na ci moom tamit ne moom la koy xaar daal mooy jàkkaarloo boo xam ne war na koo jàkkaarloo doom yi ka nga xam ne moo di Boy Kaïré di Diène Kaïré yëglikaay bi di sunu làmb ba tey moo xëy ñëw tey ci mbir mu mel ni ki noonu mel ni ki moom Moodu Anta moom nag yëglikaay ba mooyu ko tey ndax ñëw na ci palmarès am ak 17 victoire ak 4 défaites ya nga xam ne dajale na ko sunu làmb xëy tey ñëw ci mel lu mel ni ki noonu mu mel ni ki nag ba tey làmb jooj nga xam ne nar naa am la 4 avril te ñu nar koo def ci huis clos yëglikaay bi di sunu làmb nag moom tey ci gëstu boo xam ne ni daal def na ko gëstu bu yaatoo yaatu jëmale ko fa nga xam ne moo def ci arène nationale Abdoulaye Dembélé nag moo def booba gëstu ci ñi doon wax naan arène ba vingt-deux mille places la maanaam ñaar fukki junney place ak la nga xam ne moo di ñaar mu mel ne ki nag mbir ya moom demewut noonu nga xam ne noonu lañ ko daan waxee maanaam boo bëggee dëgg-dëgg place ya ñeenti ñaar fukki junni ci lay war a toll waanaam vingt mille places daal mooy la nga xam ne nii moom moo di place yi nga xam ne ñoo nekk ca arène nationale yëglikaay bi topp na ko banque par banque nee na boo xoolee banque yu xonq ya maanaam sièges yu rouge ya moom quatre mille cinq cent place la bu dee yu zone ya moom yëglikaay bi na sept mille cinq cent la bu dee ca des diverte ya moom huit mille la yëglikaay bi di sunu làmb tey moo xëy toppal ñu loolu fa nga xam ne moo di arène nationale mel ne ki nag moo tax yëglikaay bi gis daal nekkoon li am solo ba des daal bu bëggee dégg-dégg huis clos bi war na mën a de waaye tamit xanaa kon huis clos partiel huis clos boo xam ne daal ñenn ñu ci ne dañuy am foo xam ne fa la ñuy toogee moo tax ka nga xam ne nag nekkoon na fi ministre ci jamono Abdoulaye Wade xëy na tey wax ci mbir mu mel ne ki noonu muy Serigne Mbacke Ndiaye Serigne Mbacke moom la mu xëy xam ne moom ancien ministre ba daal nan li des am ba daal nee na maanaam daal nañu jël ay responsabilité yoo xam ne ni daal jéema a autorisé la nga xam ne moo di 3000 wala 5000 places sax nit ña mën caa toog parce que jàpp na ne loolu buñ ko defee itam amul lenn loo xam ne ni lu muy wàññi la boo xoolee arène nationale bi ak na nga xam ne noonu la toll mu mel ni ki nag moom yëglikaay bi ñëw na tamit ci bira seen ak conflit boo xam ne juddu na dox ci diggante seen seen ak promoteurs yi yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy wax ko mu mel ni ki moom bira nag moom lan ko jox lu tàng la de maanaam pataas bu tàng buy lakke daal la ñu teg ci ay loxoom ñuy xool nag moom naka la ko mën a def ba seral ko moom Bira fa nga xam ne nag moom la jiite woon lamb te jóge fa muy Kaolack mu région de Kaolack daal ka nga xam ne nii moo xëy tey di wax mooy saa coom bi Jóob saa bi daal la mu xëy xam ne daal ci bureau bu bees bañ fa teg daal nee na loo ci mun a dégg moom am na ay lees waxul tey itam am na ay complot ak ay règlement de compte yoo xam ne mu nga ca biir bureau boobu nga xam ne moom lañ fa tabb bu yàggul moom saa coom bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record yi moo di Bombardier la xëyal tey mu mel ni ki moom MMA ba nga xam ne moom lay waajal ak ka nga xam ne moo di Pologne ba nga xam ne moom la war a jàmmaar lool Bombardier nag yëg li kaawi nag la mu bëgg daal mooy gagné Pologne bi daal di nag dem dugg ca la nga xam ne moo di UFC ba record a xëy ñëw tey toppal ñu loolu mu mel ni ki Bombardier daal lii moom moo di ay bëgg-bëgg ci wax joo xam ne seq na ko ak ka nga xam ne moo di Abu Nduur ba tey bu nu continuer ci mbiri bombar ji moomu ci record ba tey rek yëglikaay bi toppal nañu ko ak ña nga xam ne ñoo di benn télévision boo xam ne ñu nga jóge ca réewum Pologne ñëw ba Sénégal toppoon Bombardier di def ak moom benn film maanaam wakaam ak fu nekk ci Ndakaaru wala boog ci réew mi jot na faa dugg ak ñoom li ko waral nag mooy combat ba nga xam ne ci la jëm war koo jongante yi ca Pologne moom Bombardier mel ni que ba tey ca combat bu ma moom maanaam bu yéeg ba wala buy dugg wan way lañ ko war a tegal gars yi ba mooy maanaam Waly Seck lay doon wala Youssou Ndour mel ni kii moom tamit mbir ya moom mu nga foofa waaye la sa mën a dégg daal nanu xaar ba yëgg ca bés ba leneen loo xam ne ni moom record xëy na tey ñëw ci samp ci ab laaj maanaam nit ñi war cee bàyyi xel a juróog tiitaange wala ragal mooy combat bi war a dox ci diggante Modou Lo ak ka ne na xalaatu tey wala suba muy tëgg làmb ci huis clos ak xaalis ba nga xam ne def na ko ci combat nga xam ne moom la taxaw taxawal moom nag bokk na ci combat mu taxawal double moteur Quench ak itam soq gàmmu géey waaye baaba daal lank naaka kandaana ne na bu jàppale amul moom xalaatu ko tey suba waxi noppi di dugg ci ay wiiklu ne na itam bët du yenu waaye xam na bu baax a baax li bopp attan baaba jaw moom loolu mooy ay waxam keneen koo xam ne la mu attan ba nar koo def mooy fàllu njaay loolu tamit ku yebu xaar ko ci Equivox waxtaan fàllu daal fa nga xam ne moo di faas njaga coy la fas yéenee dem bi nga xam moom la ñuy dugg si ah, la fàllu nar maanaam lambi mbappat fa nga xam ne mooy ca Gàmbi un million deux cent cinquante mille ay salga rëg-rëg ñoom moo get ak lépp nga ca biir mu mel ni kon daal foofa moom toq suban lay doon sañ bëréer xam naa kon fa muy feeñe daal ku yebu kari ko fa nga xam ne moo de ca faas njaga coy man nag bu sobee suñu borom maak ñi ma war a yaakaar naa dana mu dem faas njaga coy parce que nag lamb moom moom moom suñu yëf la nag ci euh, li nga xam ne rek moo di suñu làmb Babacar tey ci xëtam bu njëkk mu daal di ñëw ñun ci combat ki nga xam ne moo di Lac de Guiers 2 ak Eumeu ginnaaw nag bam bañ toogee 11 mois yoo xam ne dañoo chômé maanaam bëriwuñu est-ce que buñ dellusiwaatee dinañ bëggal bégal ñi nga xam ne ñooy askan askan 11 mois ça veut dire que fukki weer ak benn yoo xam ne toog nañ ko wax na dëgg parce que mat na presque mo léegi mat sax 12 parce que mois de mars la woon mm-hmm. lañ ko junne bëri yaakaar naa bañ ci jógee ba tey bëriwaatuñu defe naa kon ñoom tey ah, ndax dinañ bëggal public bi ñaar ñi moom loolu xam naa ne du jara laaj parce que li tax mooy xam naa dinañ ko def li ciy metti ji rek mooy public bi nga xam ne du assister combat bi bu ne dañ ko seetaan ci pay per view ak mel ni ki mais xam ne moom tey bu la bu public ba bu leen stade ba ay nit nekk fa Eumeu Sène Lac de Guiers 2 ah Mor Ngom ma xam ko kii di tëggal Eumeu Sène ak la muy tëgg ci galañ di tëggkatu séréer bu mag dëkk ci seen côté yooyu kii Mbaye si Ndiaye bu Wally di ko tëggal la dëgër de non bu public ñëwoon waxuma la bégal askan waaye danañu def toq su bën lay doon sañ bëri mais nag malheureusement public ba du ko fekkee ndax coronavirus bi ndax wiiklu mais bon jàpp nañ ne incha allah même ak lu loolu am am am buñ ci yeggee da nga gis combat bu neex ak am spectacle donte tamit ñaari mbir mi dañ créer spectacle xam naa ne dëgg waaye ba ci 4 avril boobu ki nga xam ne moo di Modou Anta war a euh, moo di di jéen waaw waaw muy bés boo xam ne mooy li ma la wax rek bés bu nar a neex la mhm. wallaay li ci li ci métti rek mooy public bi ko dul assister mhm. mais gis nga làmb jooju bu doon tënte public bi dafa ñëw non ami bu keroog da nga gis lu neex ndax xam nga Modou Anta ak waa Thiès Thiès xam nga ay artiste dañ fa yàgg ay jàmbaar nekk fa foofu ci Kajoor te jéen Kayre tam dafa doon lu bëri bi parce que kuy sa baay booy Kayre kuy sa xaritu baay Lac de Guiers numéro non boo boo bëree war wàcc war nga boo bëree boo bëree war na. mu ne ku juddoo ci Dakar maa ngi ci li mu waaw boo waaw boo ne toll ñu laaj la ko di moom looloo ko arrivé kon. loolu <laughs> la demee. bu ñu jógee foofu rek reprise euh, combat ci huis clos bi mu am ñoo xam ne ànduñ ci maanaam euh, reprise partielle lay doon daal. parcelle mooy ñuy nekk benn côté wala yu mel noonu parce que huis clos bi moom xam naa ne ak lu mën a xew du ñàkk des na ci amay solution xëy na balaa sax làmb yaa jot parce que li tax mooy arène bi rëy na rëy goo xam ne pour man war na mën a def parcelle bu dee parcelle mooy am ñu tooge nii wala ñee tooge ne ah. mhm. waaw pour man loolu mën na ne Mhm. waaye ba tey rek bu demee fële ca arène nationale capacité d'accueil bi toll rek ci euh, mille places au lieu de vingt deux mille places. waaw parce que dañ doon dañ doon dégg ñu naan vingt mille vingt la mille places ñu bëri loolu lañ doon wax. mais nag tey ci gëstu Abdoulaye Dembélé lañ ma koy nuyu di ko suma xarit boobu. Mhm. borom sunu làmb topp na. li nga xam ne moom mooy arène bi compté na 16 yi moo xam rouge bi la moo xam vert bi la moo xam zone bi la bu ci nekk wax na nombre de places bi ba ba bi mu ko tënkee muy 20 000 places muy loo xam ne tamit lu jar a bàyyi xel la et moom tamit di ko ci félicité ndax def na liggéey bu jafe vraiment. waaw waaw voilà ba tey rek ki nga xam ne moo di Serigne Mbacké Ndiaye di ancien ministre moom nag ñëw na rek ci place yi nga xam ne moom la ñu autorisé ci huis clos bi moom gis na ne mën nañoo autorisé trois cent ba cinq mille places ndax dafa gis ne rek trois cent personnes yi ci biir huis clos bi tamit du dara. waaw trois mille ba cinq mille places. Mhm. waaw loolu moom ah bu mën war na mën a ne par rapport ak foo xam ne dañ leen a vingt mille places lay def. Mhm. xam nga fu war a def ñaar fukk. Mhm. boo fa mayee ñett wala juróom. du bëri lu maanaam mën na bañ a feeñ kon defe naa loolu sëñ Mbàkke wax lu jar a bàyyi xel la waaye wax dëgg trois cent personnes moom <laughs> moom doy na waate trois cent personnes waa kii la quoi waaw doy na waar daal. dëgg la Babacar conflit bi nga xam ne am na diggante CNG ak promoteur yi maanaam ñàkk déggoo bi ki nga xam ne moo di Bira Sène ñëw na ci. mel dañ ne sax moom lu tàng lañ ko jox si loxo. Mhm. waa loolu daal li ci am solo mooy dama naan sax est-ce que li yëpp li ko indi rek bokk na ci coronavirus bi moo créé problème yi yëpp. parce que CNC ak promoteur ku ne xam ne mënuñoo tàqaloo parce que li tax mooy CNC su promoteurs yi amule ñoom duñu liggéey parce que ñoom ñoo ñoo leen fa toogal toogal fa waa làmb kon promoteurs yi tamit bu CNC amuloon du leen arrangé ndax seen xaalis yi ñuy joxe bëgg nañ même ay garantie ñu koy sécuriser te lépp ñoom ak CNC ñoo koy seq di ko liggéey kon defe naa ay nit lañ yoo xam ne wala ñoo xam ne la daal li olof di wax rek ñu bokkul teen la ñoo war a laxasoo laxasoo ay goj mais loo ci mën a dégg yëpp bu coronavirus bi jeexoon bañ xam ne daal a dégg. Mhm. bu ñëwee na faagaal ñàkk yi kay ñëw ne rek bu Kaolack. Mhm. bañ a defee ay mu mel nii daal dafa am ay règlement de compte yoo xam ne dañ ko nemmeek ci biir Serge ba. di Sadio daal. waaw mhm. moom gis na ne daal bu bees bañ fa sanc maanaam daal loo ci mën a dégg jàpp na ne am na ay règlement de compte ñoo xam ne daal am na lu ñu amul njariñ parce que li tax mooy amul njariñ mooy nit ki bu la defee amee lu war a tax nga koy jàppal ay règlement de compte ci sa xol di ko ko dencal li gën mooy nga wax ko li mu def yaa dégg su dee luy faju la mu faju bu dee loo xam ne nu ngeen koy traité ngeen traité ko mais moo gën di melen mer di denc daal amul njëriñ daal surtout ñoo xam ne da war a ànd liggéeyal aw askan parce que tamit ko mhm. doomu Kaolack yi ëpp ñu fa xam-xam des leen a wóolu doy loolu leen jox leen kon defe naa ne waruñu faa nekk nag di meronte ku ne di bokk golo gi comme ni ko ni ñu koy waxee yooyu moom c'est inutile balaa ci looluy am pourquoi du ngeen waxante leen seen diggante ngeen régler ko te continuer liggéeyal askan wi loolu moo ëpp solo voilà Youssou Ndour na ko wóolu gin la wóolu <laughs> fexeel ba bu ko fooyee <laughs> fooyee ko nag bokk na ci di mer di denc waaw euh, ñu daal di ñëw rek ci nga xam ne moo di Bombardier mhm. moom nag euh, ki nga xam ne moo di euh, Polzonowski voilà moom tur wa daa jafee wax rejoindre li nga xam ne moo di UFC waaw tur waa jafee wax <laughs> Polzonowski xaw ma <laughs> daal la yàlla na ko Bombardier gagné rek waaw pour gagné ko pour dem UFC la mhm. na ko réussir yàlla na ko gagné gagné gu gaaw a mën a dugg UFC ndax loolu lépp pour Sénégal la pour athlète Sénégal la pour drapeau Sénégal la Bombardier moom xam nga ne ku ne xam na ne MMA bi tey defe naa ne moom bokk na ci ñi nga xam ne ne tey ah ñoo bu amee tànk fii ñu ko fi dëgëral Sénégal ci la bokk ba tax na tey mu ciy décroché sans combat yi kon ñu ngi koy ñaanal mu am ci ndam te muy dëgg da da di mbir mu mag nekkatul ku ndaw de ah euh, euh, bu nekk Pologne mm. moo ko daal di toppoon rek fii Sénégal am yenn yu mu doon def ak moom lu mel ni kon genre documentaire ak yooyu waaw wër nañ nag fu mu bëri ci Sénégal waaw parce que loolu defe naa ne c'est normal parce que comme li nga wax rek Bombardier nekkatul mbir mu ndaw day naa ku nekk ci lutte avec frappe roi des arènes ñaari yoon mm-hmm. bëre yeneen bëre yoo xam ne nii bëri na ko turki ndax ku ni dégg na keroog li ma wax ci biir Equivox kon defe naa ko nekkatul mbër mu ndaw defe naa tamit ki nga xam ne moom mooy champion bi gën a mag foofu la war a jonganteel kon waa Pologne nag dinañ laajte ñoom itam kan mooy Bombardier moo tax xam naa ñu ñëw topp ko ak seen télévision pour def ci moom benn documentaire moom it mu wan leen li muy Sénégal di dëkkam dëgg la euh, ci reprise compétition à huis clos bi diggante Modou Lo ak Ama amul dara loo xam ne war nañ cee mën a tiit tamit waaw yëglikaay bi loolu la laaj waaye man dama naan la les ci war a mën a tiit di gisuma ko ndax promoteur bi ko tëggoon mm-hmm. la ko arrivé woon di am ndog muy lig ni ko laaj mu koy nuyuwaat di ko jaar yàlla dogal na loola jeex na mm-hmm. ba tey mu ngi ci biti te itam ku ne gis na ne bi mu génnee quelque temps commencé woon na entamé waat combat bi ba Modou Lo defoon conférence de presse ñuy xaar Ama def far ñot ñu tere ndaje yi public yi loolu tax Ama deful kon defe naa moom mu ngi ci li des nag mooy ñaan yàlla rek corona bi dem te xalaat naa ne bu corona bi demee li dina organiser làmbam ndax comme li ñu koy wax rek moom nit la bi nga xam ne moom dafa yàgg di relever ay défi moom Luc Nicolaï waaw euh, la ñuy daal di yem di sant yàlla di ñaan jàmm ci Sénégal di ko ñaanal àddina bi yëpp ah. Equivox moom la fa xewoon démb. waaw démb de ay invité lañu amoon rek ku mel ni Fallou Ndiaye moo ñu seet si woon démb ñu koy nuyu war la ko waral bokk na ci dafa war a dem samedi ak dimanche Fass Ndiaga teg fa 1 million 250 mille mhm. ñu nar ci ànd ak moom loolu tamit di loo xam ne ni ci amateur bàyyi xel muy lutte simple bu ne Fass Ndiaga nag ca Gambie la mhm. yaa ngi dégg ki euh, nga xam ne tamit moom mooy big pato tamit la police mbër am ay projet pour làmb tamit démb ñëwoon ñu seet siñu yooyu yëpp ngi fii baaba jaw it démb seeti woon nañ ko bi tëgg combat jin kay rak moom mooy double moteur wala boog double moteur ak Quench di moins yooyu yëpp am na fi daal muy ay vidéo yoo xam ne lépp ci làmb la ak tamit yeneen vidéo yoo xam ne mu ngi ci wàllum société ñoom noonu na nga koy waxee ak yooyu ak gëstu ya nga def woon Pikine démb ci affaire ñaar ñooñu faatu foofu yooyu yëpp ñu leen di ñaanal yàlla yërëm te xaraleen aljana waaw loolu la Equivox mbokk téléspectateur yi fi la ñuy daal di yem ak yéen nag ci xibaaru làmb ji tey